Mm-hmm. la situation dafa metti Sénégal képp ku ne méttiwul dama yaakaar ni nekkoo ci Sénégal gi sénégalais yi nekk. Mm-hmm. réew mi metti na xaalis amul jeunes yi liggéeyuñu ménage yi nga xam ne effectivement Macky Sall président Macky Sall doon na wax ne dañ ñoo ngi leen di mu ngi leen di jàppale loolu aussi gisuñu ko. Mm-hmm. ce qu'il faut dire de franchement réew mi tolloon tolluwaay boo xam ni moi je pense que la seule solution c'est que mettre le président de la République. Euh, xam ni nag réew mi fi ne nii li ko wàccoon nañu moom. def na ko. il a atteint ses limites. il a atteint ses limites. Mm-hmm. il a atteint ses ah, en douze ans il a dit euh, avoir il dit avoir beaucoup fait euh, ci wàllum koom amélioré na euh, dundinu sénégalais yi infrastructure mooy aussi aide sociale yaa ngi doon wax sànq par rapport ak saa aussi il dit avoir beaucoup fait pour les sénégalais donc fan la problème bi nekk. waaw mais problème bi fi mu nekk ci vision la xam nga ñun Ablaye Wade. Euh, daf ñu jàngal ni réew boo koy yor da nga koy yor ci vision maanaam gis-gis waaye nag boo amul gis-gis wala sa gis-gis bu weesuwul sa bakken bi mënoo jëm fu sori. Mhm. te jàpp nañu ne président Macky Sall euh, boo boo xam nga démb euh, ñëw nañu assemblée naan ñu ay woy nous avons porté le budget à cent mille à cinq cent. oui justement c'est mais loolu amul solo xam nga li am solo on parle de pour deux mille vingt quatre exactement xam nga li am solo. Mhm. mooy sénégalais bu ne fa mu nekk mu mën a am dundin boo xam ni. Euh, du soxlaati sax état di ko jox ay vingt cinq mille francs par trois mois les bourses fami les mm-hmm. mais loolu war nañ cee wax mais dans quel pays la ñu gis ñuy maintenir nit ñi ci pauvreté. mais ce qu'ils nous disent mooy dans tous les pays am na benn tranche boo xam ne ils ont besoin de ce soutien pour génn ko dem ci tranche intermédiaire boo xam ne peut-être moo leen permettre di commencer am ay revenus. mais loolu day am ay mécanismes yu accompagne politique boobu mais amul nga Sénégal lan moo fi mm-hmm. euh, bokk ñu jël vingt cinq mille francs par ñetti yu ne. jox la ko. non non non mais looloo am loo mais dama ni la ñun dañu ni. Mhm. au niveau de l'Assemblée nationale il faut que ñu teg une commission parlementaire. parce que réew mi aussi lay dem mais xaalis boobu évaluation bi. xam nga li gars yi di um umpale mooy ñoom dañu yaakaar ni xaalis bi Macky Sall moo ko jëlee ci poosam di ko dugal ci seen ci seen i gafaga. Mhm, déedéet demeewul noonu xaalis bi assemblée nationale. donc am ngeen ci droit de regard. mais looloo tax ñu demandé ay ay commission euh, d' parlementaire ñuy xool xaalis bi. Mhm. parce que jot na aussi. ñu saytu ko assemblée nationale bi joué quand même. c' ay milliards la yoo xam ne depuis 2013 je pense mais kenn xamul nu mu toll. Mhm. te it ba léegi xaalis bi mi ngi dugg mais ndóol gi mi ah, euh, xam ne sax ils ont yoo xam ne permettre na leen ñu génn ci ndóol gi ñu nekkoon ba léegi ñu ngi ñu ngi demal seen bopp mais ñoom bu ñu taxawee ñoom député yi yi nga xam dañoo bokk ci mouvance présidentielle. Mhm. dañuy taxaw naan ah mais bourse sociale yi joxe woon nañ temps ren doublé nañ ko. mais loolu mooy doublé la demande d'aide est encore là. mais cela veut dire que dañuy doublé pauvres yi. cela veut mhm. dire que ñañ doon jox. yokk nañu mais lan moo leen yokk. Mhm. c'est parce que amuñu ay mécanismes yoo xam ni day accompagner ñooñu pour ñu génne leen ci ndóol gi ñu nekk. ñoom daal assistant la. yi man je suis le député quand même de de de de l'Europe du Nord. de l'Ouest et du centre. Uh-huh. mais France dafay am ak ak yeneen pays yi nga xam ñoo wër France day am loo xam ni bu sa doole tollul fenn si day am loo xam ni état da la koy jàppale. mais état bu la koy jox ci côté bi danaa la kat ah il faut nga def formation. Mm-hmm. il faut nga xëy bi di la contrôler ñu ne la bu ñu la ko joxee ci nangami weer. te gisuñu ne defoo benn effort pour am liggéey. ñu rocci ko. Uh-huh. mais loolu